jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataan di déglu vendredi bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Mamadou moom monsieur Niang nekk chargé des revendications de l'association nationale des accidentés du travail et ayant droit euh, monsieur Niang euh, ñu ngi lay wax dalal jàmm ci wuy bi nga xamante ne nangu nga ko wuy suñu si suñu invitation bile. Euh, salaamaaleykum euh, waa Sénégal salaamaaleykum waa rajo bi maa ngi di ku nekk sa tur ak sa sant di gërëm euh, yow mi soxna si mu ma dalal fii rajo bi mu tekk toujours mbégte pour nekk wax si rajo bi fekk fi suñu ñu fi nekk ay sénégalais di leen nuyu di leen sant di ñaanal. si suñu mbokk yi dem màggal yal na leen yàlla yóbbu si jàmm ñu dem ci jàmm ñëw si jàmm fekk nañ si jàmm et lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu di ñaanal suñu suñu kilifa diine suñu suñu njiit sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi loolu te wér mm-hmm. Mm. Mm-hmm. amin yaa rabana ah, ñu tàmbalee waxtaan bi rek ci li nga xamante ne moom moo soxal seen association bi tey jii lan nga ñu mën a wax ci historique euh, li sabab euh, ngeen taxawal kuréel bu ni mel. Euh, jërëjëf ñu ngi ñu ngi kontaan si si question boobu effectivement association bi ñu ngi ko ñu ko créé en 1973. yàgg na xam naa ni moo ñu mag ñu ñëpp ay kilifa comme ni ko mos a wax yu am valeur yu bëgg Sénégal bëgg Euh, liggéeykat yi bëgg liggéeykat yi seen liggéey dox euh, xam ni accident de si liggéeykat parce que ba ñu nee accident de rek nga xam ni ñooñu ay nit lañ danoo accidenté duñ doon liggéey ba accidenté ñu jàpp ne war nañ créer benn association boo xamante ni dina mën a dimbali ñëpp dina mën a jàppale ku nekk boo amee soxla ak nu mu mënt toll ñu taxawu la jàppale la. Euh, ku si accidente aussi même boo feebaree aussi mi maladie professionnelle aussi euh, association bi dalay lay taxaw ak ñoo xamante ni dañuy xëy euh, yàlla def ñu ñu ñàkk seen bakkan seen njaboot yi fi des association bi taxaw la lépp loo bëgg di ko laajte lépp loo bëgg di ko di ko toppatoo pour que cette prise en charge association bi taxawu si ba nga am li nga bëgg. loolu moom mooy loolu moo tax ñu gën ko loolu moo tax ñu créé ko. te boo xoolee ba tey yi ñuy waxee ñi yàgg na association baa ngi dox président baa ngi fii am na secretaire général te ñu ngi koy doxal euh, di dalal nit ñi képp koo xamante ni bëgg nga nu euh, jàppale la euh, boo ñëwee ba si ñoom boo leen woowee téléphone. lépp lu nu mën def pour taxawu la dinañ la ko taxaw mhm. loolu moo tax ñu taxawal ko mhm. euh, ñu bëggoon rek euh, xam euh, ñan ñooy farataal di di di adhéré ci seen kuréel bi ak i tamit naka la def pour mën a nekk ay membre à à part entière waaw pour kuréel bi moom boo si bëggee bokk du du du du loo xamante day nekk loo xamante ni yàlla moo na yàlla mooy def rek nga def nga nekk accident de travail accident de travail nag moo koo xamante ni dafa xëy di liggéeyi si yoon bi mu accidenté wala fu muy liggéeyee mu def fa accident wala mu ñibbi si di këram mu def accident loolu yëpp si accident de travail la bokk léegi nag euh, bu fekkee da nga koo nekk euh, l'employeur mooy ku la jël da koy déclarer bu ko déclarer ñu utal la carnet parce que moom moo ñu yor ñun au niveau de la caisse de sécurité sociale ñu toppatoo la ba nga euh, ba nga am sa certificat de guérison ñu defal la sa sa sa comme on dit sa benn incapacité boo xam ne naan bu fekkee dañuy wax ni caisse de sécurité sociale bu fekkee euh, am na benn benn taux dañ dañ koy woowee taux d'incapacité mooy taux boo xam ne da topp pour toute ta vie euh, ñu jël la. bu fekkee am nga ko ba ba jox la sa kayit léegi da ngay ñëw président baa ngi sur place le président euh, généralement il est tous les jours à la caisse nga ñëw nga wax ko ni si accidenté nga bokk mu jox la carte nga bokk si nga adhéré lépp loo xamante ni soxla nga ko lépp loo xamante ni bëgg nga ko lépp loo xamante war na si jàppale moom mu jàppale la donc pour adhérer il faut nga dem ba si président bi mu jox la fiche d'adhésion nga dugg boo duggee après bokk nga si association bi mais d' accident mm-hmm. numéro de euh, du du accident boo xamante ni boo bokkulee caisse sécurité sociale moom mënoo bokk suñu association mm-hmm. cest à bokk si association mm-hmm. mbaa mbaa ni nga ko waxee nii c'est pas trop sélectif est-ce que du am ñoo xamante ne donc dañu nekk ay accidenté ci wàllum seen bërëbu liggéeykaay bëgg a adhérer mais peut-être euh, seen critères yi xaw a di si ñoom aussi. waaw loolu moom boo xoolee euh, ça dépend pas de nous parce que pour nga bokk caisse de sécurité sociale. Mhm. caisse il faut ngay cotiser. Mhm. boo xoolee euh, képp ki liggéeykat ba si prestation. da ngay gis da ngay cotiser caisse de sécurité sociale dafa bind da nga si bind ci bi CSS accidenté travail. Mhm. trois pour cent ku ngay liggéeyal sa employeur moo la koy cotiser am na sax bu euh, allocation familiale bu sept pour cent képp koo xamante ni boo xoolee si bulletin yi dañ koy cotiser c'est de l'argent dañ koy cotiser trois mille ñi naan deux mille ñi naan pour chaque mois. bu fekkee cotiser woo pour chaque mois mënoo bokk caisse de sécurité sociale bay bokk suñu association il faut nga cotiser ba. nga euh, bokk ci association bi bu ko defee il faut nga cotiser ba nga am numéro boo amee numéro ñu lay doogaa mën a boole ci association bi c'est vrai am na ñoo xamante ni bokkuñu ak cotiser wul leen euh, comme on dit assurance la dafa mel ni comme ngay assurer sa oto euh, ngay nga nga am accident assurance bi da lay toppatoo mais boo assuré sa oto accident assurance di la mën a toppatoo. Mm-hmm. c'est à peu la même chose. donc mm-hmm. il faut que l'employeur di la cotiser chaque mois. Euh, tous les mois nag amul benn mois bi mu tëb. di cotiser caisse sécurité sociale ba yàlla def jur boo defee accident mu jël la boole la si euh, nga. boole la waa caisse. Ah. après mu déposé ko bu ko caisse déposé après ñu doog laa defal ce qu'on appelle ce numéro ce sinistre ce numéro d' pour ñu doog a mën a boole la si accidenté du travail di nekk au niveau du Sénégal. Mhm. Mhm. Mhm. Euh, ci niveau national boobu lay ñëw tey ji ñu bëggoon xam rek euh, comme que association nationale ngeen euh, ba xam am nga am ngeen ay ñoo xamante ne ñoom ñoo leen di représenter ci ci ci ci ci ci différentes régions yi. waaw euh, loolu lu am solo la parce que suñu association c'est national. Mm-hmm. même suñu président bi fi nekk muy euh, monsieur Cheikh Tidiane euh, Sow ma koy nuyu au passage kooku c'est le président national raison bi nekk. am nañ fa ñu ñu fa représenté récemment il y a quelques deux à trois mois j'ai eu à participer benn tournée sax. Mm-hmm. dem ci région de Dakar yi dem nañ ay quelques régions de Dakar fekk fa suñu association yi fekk le fekk si fekk président régional yi waxtaan ak ñoom ñu wax ñu seen xalaat wax ñu seen seen bébét wax nu ñu bëgg euh, par rapport ak beaucoup situation ñu relever ko ba ko ñëwee aussi danoo def suñu rapport ñu jox ko suñu président président jël ko daal di koy déposé ñun donc association bi national la am nañ ay représentant un peu partout au Sénégal ñu ñuy woo. ñu ñuy laaj lu ñu bëgg ñu koy toppatoo. Mm-hmm. am na sax euh, agence yi nekk ci région yi sax euh, bu fekkee dafa am euh, ñun agence bu nekk Dakar mooy agence bu mag bi yaa a beaucoup de yoo xam décision yu bari fii lañ koy jëlee. Mm-hmm. donc moo tax aussi ñun suñu association bi c'est une association nationale mais am nañ aussi on on est représenté partout. Sénégal. Mhm. voilà euh, ngeen daal di koy sos ci atum 1973 tey jii bu ñu bëggoon xam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di limu membres yi ci ci ci ci naka ngeen di toll. à peu près euh, pour pour pour joxe benn nombre bu kii day xaw a jafe parce que association bi à l'instant que je parle am na tey ku si bokk. Mhm. à l'instant que je parle am na ku si génn àddina. chaque jour day am ay dara chaque jour day am ñuy dugg day am ñuy génn. Mhm. parce que am ñoo xam ne ñu ngi décédé. yàlla na leen yàlla yërëm sunu sunu sunu grand yi bare gaañu nan am na ñoo xamante tey ñu ngi adhéré parce que chaque jour day am accident de travail. Mm. à chaque heure sax chaque minute day am accident de travail donc suñ ko tollalee après entre cinq entre six mille actuellement ñun suñu association rek. Mm-hmm. mais boo xoolee au niveau national on est presque huit mille. Mm-hmm. à ak ñoo xamante ay accidenté lañ mais ba kenn déclaré wu leen. Mm-hmm. ñooñu tamit ay accidenté topp te bëgg naa foofu aussi ñu taxaw si tuuti parce que ñu accidenté déclaré wu leen danoo bare ñoo ëpp bare nan ñu accidenté seen dossier nekk à la caisse de sécurité sociale bare nan mhm. ñu war leen jox numéro war leen toppatoo bare nan yàlla a le, le cas de Baba Koundoul y a de de de de Mouhamed moo xam naa ko fi aussi ñu am ay IPP yu am solo IPP mooy. Euh, sa sa degré de de kii bi sa degré de de sa degré de accident bi mu toll ñu ngi koy woowee incapacité euh, partielle permanente loo xamante ne pour tout la vie nooñu doon ko am ay 40 pour cent ñi 30 pour cent ñi 40 pour cent seen dossier mi ngi à la caisse te nan ñu bare ñoo xamante ni seen dossier mi ngi caisse ba léegi euh, kenn kenn kenn kenn kenn toppatoowu leen kenn kenn kenn fayigu leen. Mm. am na ñoo xamante ne seen jëkkër gaañu na. Mm. ñu si bare aussi jigéen ñu bare xëy. yeewu sa jëkkër tàggu la maa ngi dem xëy xëy la matin 10 heures 11 ñu la woo sa jëkkër gaañu na fu mu liggéey wala yoon wi accidenté na mu nekk lu metti loo xamante ni euh, généralement choc psychologique lay nekk boo xamante ni pour nit toppatoo ay këyitam ba adhéré sax day xaw a jafe. Mm. mais ñun bu ñu ñëwee suñu association bi ñun dina leen jàppale dina leen wan yoon bi ba nu mën a déposer seen këyit ba nu war leen mën a fay normalement. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, lim bi da ko xaw a estimé rek euh, entre mille et six mille. Mm-hmm. mais au niveau national wax nga ne ça tourne autour certainement de plus de huit euh, ñu ñu ñu taxaw foofu jël en charge ñi nga xamante ne ñooy lim bi ndax ndax déedéet yombut dafa jafe dafa metti ndax euh, euh, chaque instant ñu ngi lay solliciter chaque heure ñu ngi lay solliciter te la demande est très très forte te lu si nekk dañ koy wax ñu nu war a dimbali ñu nu war a jàppale ku si njëkk mooy la caisse de sécurité sociale dafa nu jàppalewul dafa nu dimbalewul. Euh, su ma ko waxee xam naa tam moo wax ko. parce que au niveau de la caisse sociale déjà dafa amoon ce qu'on appelle des assistants sociaux. sociaux non assistante sociale assistant noonu laa ko mën tuddee assistant sociale yi bare woon nañ foofu. ils étaient trois à quatre kenn nekkatu fa. médecin traitant bu nu war a dimbali sax bu nu war a jàppale sax boo gisee national bi yëpp benn médecin traitant moo fi nekk benn. pour pour pour pour pour accidenté imaginons presque huit mille à neuf ñu naan la benn médecin rek moo fi nekk pour toppatoo tous les accidentés mu nekk loo xamante ni dafa dafa doy waar kenn moo fi nekkoon madame Ndiaye retraité na ku jeune leen indi tey ku seet ku certain docteur Bari bu mu ñëwee sa yàggul moo fi nekk actuellement mu nekk loo xamante ni dafa doy dafa métti te boo xoolee ba si biir boo defee accident lu jar a souligner la nga dem si sa entreprise kon fi ngay liggéeyee nii nga gën def accident. boo defee accident de travail ba pare bu demee sa employeur mooy fi ngay liggéey daal di koy déclarer boo ko déclarer ba nu defal la certificat de guérison defal la sa sa IPP par exemple ñu ne am nga rentre par exemple cent mille wala deux francs par deux mois wala euh, par trois mois euh, caisse de sécurité pare na si yow amootoo benn couverture maladie waaw loolu moom lu lu lu lu jar a souligner la. Mm-hmm. yow ak sa njaboot yëpp. voilà donc loolu nag ñun association bi ñu ngi koy dund président bi secrétaire général bi chargé ñëpp bureau bi ñu si nii di si liggéey di dal nit ñi di woote wàllu di wax fu nekk di yuux fu nekk pour loolu ñu mën ko mën a mën a dimbali même pour ñu organiser dafay jafe. parce que day xaw a jafe parce que ñu ñoo ñu ñu war a jàppale mooy ñoom mm-hmm. day xaw a jafe tuuti pour ñu jàppale ñu mm-hmm. donc dañuy woote partout ñu yuux partout pour ñu mën a dimbali pour ñu mën a jàppale les accidentés de travail parce que ay nit lañ aussi yàlla moo def ñu loolu liggéey accidenté euh, ñii seen baaraam dem ñii seen loxo dem ñii seen tànk dem ñii seen bët dem euh, ñii perte seen ay njaboot mais ay nit lañ ba léegi. Mhm. voilà mhm. ay nit lañ ba léegi la preuve maa ma maa ngi doon seetaan sur internet seen concert boobu si leeral net maa ngi ko doon seetaan. Mhm. Euh, bu def moom moom moom moom rescapé bu moom la femme là boo gisee ko mi ngi ne bi yuuxu. te lu muy dund accident de travail moom la ñuy dund. te mën na dal ku nekk. ku yaakaar ni ci es à l'abri tu mu ngi dund lu metti wax na ko dégg ngeen ko interview noonu ko dem këram interview ko ut buzz après après jeex na jeex na. Mhm. dafa nekk lu metti donc yaakaar naa ne loolu aussi ñun ñu ngi koy dund accidenté yi mu nekk loo xamante ni dama bëggoon aussi wax ko ndax loolu dafa doy waate dafa metti trop trop trop trop trop. Mhm. Hmm. Euh, justement abordé nga sujet bi au niveau des des ci ci ci ci entreprise yi tey jii ñu bëgg rek taxaw ci ci foofu naka lay ngeen di def par rapport ak prise en charge des accidentés et moo xam ci niveau entreprise yi moo xam euh, ci côté financier mais surtout ci côté psychologique parce que certainement euh, j'imagine su su su tolof tolof yooyu amee il faut ngeen am certainement ay suivi psychologique psychologique côté psychologie ak financier eh, jëm ci ñi nga xamante ne moom mooy gëddu entreprise bi la doon bi nga doon liggéeyal comment est-ce que cela se passe. Euh, soxna si da nga posé question bu am solo ndax loolu moom mooy nit loolu moo tax ñu naan entreprise da ngay dégg entreprise bi def ay publicité entreprise bi joxe na temps joxe na lii te alors que mi ngi rey mu ngi xoñañal mi ngi sonal. ay employé am ay entreprise am ay ay accidentaire travail am boo xoolee fii Sénégal il suffit que nga def accident de travail dans une entreprise surtout suñu entreprise privée yi mm-hmm. li tubaab bi yor surtout ñoo xamante ni yaakaar ne àddina bi ñoo ko moom dañ lay jël beddi teg la fële du ñàkk nag am na tubaab yoo xamante ni am na xol baax na dinañ la jàppale toute exception am na mais ñoo xamante ni bu ñu ñëwee du ñu ñëw lu ñu sonal la fatt la te mu nu xoolee ba si biir képp ku def accident dans les entreprises boo dawalee tuuti un an deux trois ans quatre rek dañ lay jël ñu teg la fële du la toppatoo duñ la lijjanti. Euh, récemment am na benn xale bu génn ci seen benn rajo bu nekk sur place fii ni dafa dem caisse sécurité sociale di jooy. mu ngi doon jooy sax pour wax pour ñu topp topp affaire accident mu créé benn kii bu metti si suñu association ba ñun sax euh, def nañ si cette communiqué def nañ si lettre adressé ko euh, suñu secrétaire général monsieur Faye ñu koy saluer au passage muy liggéey liggéey bu am solo si association bi bind na lettre sax euh, à la directeur de la caisse sociale dafa dem di laaj nampaayam rek déjà fu mu doon liggéey bàddi nañ ko ndax nax nañ ko woo ko jox ko quelque somme mu dem yoonam benn ak tànkam bi mu ngi faju tànkam bi xamoon dinañ ko dagg duñ ko dagg te si je vous dis cet enfant xale boobu il n'a que trente ans si je vous dis xale boobu a une semaine de son mariage la nekkoon une semaine danoon waaj yóbbu mais bu njëkk pour pour takk jabar mu def accident société bu noonu liggéeyee ñu jël ko bàyyi ko génne ko sibiti dàq ko naq jox ko xaalis bu tuuti mu jóge foofu dem faju xaalisam ba mu jeexee ba mu ñibbisee kees pour topp ko depuis 2018 nga baal ma 2018 ba léegi amul gain de cause dafa mujj sax dem ba si au niveau de de de dafa dem dafa dellu dem di dem di ñëw diggante Dakar ak Kees nañ def na ko plus de trente fois ba mu demee caisse sociale pour gis directeur pour wax ak moom dan ko jël te ko dóor ko sànni ko ba xale bi génn si biti di jooy dem RFM di fa di fa wax. Mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ni comme je te dis nous les accidentés dañu les employeurs jàppale. Mm-hmm. aspect financier bi. financier bi ak leneen a si mm-hmm. parce que ah, ah, ah, pour me les entreprises yu si am euh, un psychologue da leen di compter. Mm-hmm. culturellement sax ñun est-ce que am nañ. Eh, eh, culture boobu du toppatoo nit kii du xool si lu mu nekk dafa daanaka dafa amut. donc dafa nekk loo xamante ni généralement sa njaboot ak ñoo lay jàppale ñoo lay dimbali waaw mais dafa nekk lu métti loo xamante ne euh, ñu ngi koy dund les accidentés au niveau des des des des des des entreprises te entreprises yi les employeurs encore une fois jàppalewuñu dimbaliwuñu les accidentés. Mm-hmm. te loolu ku ko waroon di leen toppatoo di leen di leen surveiller mooy inspection du travail mooy ministre du travail faalewuñu toppatoowuñu mm-hmm. ñun xamuñu sax ndax am na ministre du travail alors on a dit accentuer du travail. Mm-hmm. notre ministre tutelle c' est le ministre du travail Samba Sy. Mm-hmm. tey boo xoolee Samba est ce que moom dafa jàpp si accent travail amut. Mm-hmm. waaw parce que ñun dañu leen toppatoo te kenn kenn kenn faale wuñu. kenn kenn kenn ñu nekk si la preuve. man j'ai des j'ai j'ai des j'ai des en tant que de revendications ñoo xamante ni ñu ngi doon liggéey ci société ah euh, mën naa tudd Ousmane Badji ñoom ñëpp mën naa tudd Ousseynou Cissé mën naa tudd Samb ñoom ñëpp si entreprise da doon liggéey directeur bi ma doon liggéey daal di bind bàyyi fi ñii nañ leen toppatoo ñii ba leen naxee dàq leen ci biti la entreprise pare ñoom ñii ba nu retraité la nu pare ñoom mu nekk loo xam da nga koy dund mu metti trop ngay liggéey fenn ba tur sa sa deret normalement euh, lu sama président di wax kenn mun la fay. foo def sa ñaq na la la fay mais sa yaakaar naa kenn mun la fay. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Euh, justement ci wàllu woowu joxe nga ko joxe nga fi ay ay ay ay exemple ñoo xamante ne eh, dañu doon liggéey eh, ba mara day taali certainement nattu dal leen ci seen bërëbu liggéeykaay ñu jël leen daal di leen jox benn somme. Euh, pour certainement ñu ñu dalal leen mais ndax euh, moment yooyu du ñu farataal di di di yàkkamti certainement besoin bi dafa pressant mais ndax dinañu euh, def lépp li leen war maanaam ñu dem au niveau de l'inspection quitte à ce que ñu jël benn avocat sax ba nga xamante ne ñoom buñ fa jógee buñ fa jógee entreprise bi dina def lépp li ko war ba dina def lépp li ko war certainement ngir mun leen venir en aide ndax foofu itam gisoo ne eh, famille bi ak ñi ko war a sekk dañ ci xaw a eh, des pas-pas. waaw dañ siy des pas-pas parce que boo xoolee eh, soxna si nga def accident de travail ni mu méttee nga dund pendant des années nag di faju am amputation ku dagg sa cër da ngay mhm. nga reprendre nga toog quelque temps. sa employeur sa employeur woo la ne la ku nga doon liggéey kat mënutuma liggéey ak yow. Mhm. daal lay dàq léegi nax la wala jox la somme bu dérisoire ni la demal nax la dal lay nax daal dal lay wax yoo xamante ni euh, da si gis magum jëm sango ba set sol costume toog bureau bu sedd mais lu ma liy wax yëpp nga baal ma ay fen la. Mm. du dëgg pour rek na atteindre objectif na la génne entreprise boo génnee entreprise nga dem caisse sécurité sociale est-ce que xam nga ni accidenté de travail di nga gis man gis naa koo xamante ni tànkam moo dagg man gis nga ñeneen sama loxo ñoo dagg ak ñeneen ñeneen ñi ngi fayeeku chaque mois. kooku xale boobu cent cinquante mille par trois mois lay fayeeku par ñetti mhm. bi nekk nga fayeeku cent cinquante mille kooku nan lay jëlee avocat chaque mois cinquante mille gis naa ko xamante ni baaraamam moo dagg man topp naa ba sonn pour fu ñu jël ko ñu bañ. Euh, kooku baaraamam dagg mi ngi fayeeku dix-sept mille francs par trois mois. 17000 francs alors par 3 mois mais kooku damay interpeller sax foofu. 17000 francs par 3 mois 3 mois. journalier la woon. journalier la woon. Mhm. enfin mu ngi doon liggéey di nekk journalier di liggéey accidenté ñu déposé ko muy fay ko par par 3 mois laa la wax mais imagine kuy fay ko sax 150000 francs par 3 mois journalier kooku fan lay jëlee avocat ak ban avoca moo koy jëlee ak fan lay fay avocat. te généralement dana lay wax ni duñ la bàyyi du la parce que mooy li ma la rek yëpp c'est question de de leadership am na directeur yoo xamante ni dañu baax man gis naa si suñu association des femmes yoo xamante ne dañ seen doom mi ngi liggéey fu ñu nekk parce que man ba seen jëkkër gaañoo seen seen seen patron seen doom lu ñu ngi liggéey euh, man assisté na quelqu'un qui a fait un accident de travail si son lit d'hôpital le directeur bi dépêché le DRH mu dem mu signer ko contrat am à durée indéterminée CDI am mhm. loolu day réconforté nit te te journalier rek la woon def na ko benn yoon du ñaar yoon. ça c'est le degré dimension humaine la. moom laa la wax humaine ak xol bu muy yor. Mhm. ak baax gu muy baax moom mooy waral loolu. nekk directeur du sol costume rek déedéet xol dafa am solo si nit. nit kuy liggéey fen ba ak bu tax bu nekkoon rakam wala bu nekkoon mbokkam du ko def. dëgg mais imaginer loolu moo tax ma ne la dafa nekk loo xamante ni nit ki kese moo war a am xol xam ni ñii dañ leen war a jàppale dañ leen war a dërëm dañ leen war a yërëm dañ leen war a dimbali. Mm-hmm. parce que accidenté du travail di liggéey fenn ba accidenté wax dëgg yàlla euh, kooku boo ko dimbalul. bokk bokk bokk bokk ba nga ko war nga ko war a yërëm daal amul lenn loo mën def loolu jàpp moo les appelle sax des personnes vulnérables ñun boo xoolee euh, si code bi code code code travail on les appelle des personnes te boo xoolee caisse de sécurité sociale normalement loolu da si woon di si jàpp mais moom comme lu ma la rek ñun danoo amul danoo bàyyeele euh, ministre du travail mais boo xoolee daf mel ni amuñu bàyyi amuñu dara mm-hmm. ñun dañoo bàyyi nii rek voilà association la dinañ am boo amee looy wax nga ñëw si association bi wax ko ñu jóg bu ñu jógee bu ñu demee ñu ne code bi nii nangam nangam te comme bi ñu def ñoom respecté wuñ ko parce que respecté wuñu parce que je peux dire que euh, entreprise yi ak euh, ak ak ak boo xoolee dama naan c'est benn bande de hors de hors ñoom ñooy def leen neex parce que code 86 euh, code de sécurité sociale dafa ni chaque deux ans dañu war a xoolaat nit ki bu fekkee parce que képp ku accidenté day am séquelle mm-hmm. accidenté ba sa tànk dagg tamit nit ko doxee benn tànkam pendant trente quarante ans mu xëy am benn tànk mais kooku bu dawee lu ma cinq ans six ans dina am séquence ci yaramam. Mm-hmm. bu du amee ñaari loxo wala ñaari bëtam def accident lu lu yàlla defar nga dind ko mais kooku il faut mu am ay séquelles. Mm-hmm. mais bu amee séquelles après qu'est-ce qu'il mm-hmm. nan la ñuy def te lu toppatoo dañ lay bàyyi moo tax ñu bëree ngi dee. ñu ngi sant ñu ngi bëri di dee di di di jaale suñu mbokk yi ñoom ma xëri ñoom ma ñoom Ibrahima Diouf yu wallaahi. ñu bëri dee nañ dañuy toog di sufir di souffrir ba xëy dee. Euh, j'ai j'ai un grand bu tudd bu bu nekk Thiès mu ngi doon liggéey ICS Dakar ba léegi day def ay crise d'asthme te moo ko jëndal boppam. te loolu lu jarul sóoraale la aussi. Mm-hmm. pour te dire que comment on en en mm. euh, laata ñuy dem ci ci beneen ci beneen euh, phase waxtaan bi dama bëggoon rek nga ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di faratal di jàppale bien vrai que ci ministère euh, du travail ngeen dépendre mais quand on parle bu ñu waxee association certainement am na ay mécènes ay bonne volonté ñoo xamante ne mu néew mu bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi partager seen pen ak yéen. Euh, soxna si kooku question boobu aussi naa si posé ma ne naa si naa si répondre euh, pour waxta yàlla tax rek. Mm. ñun gis ñu kenn. Mm-hmm. dina jaaxal ñu bari nag ñun amuñu kenn dimbali amuñu kenn ku ñu jàppale. Mm-hmm. Euh, yuuxu naa fu nekk man jàppoon naa nit ki boo koy liggéeyloo même sa jànq nga koy liggéeyloo ba mu gaañu di nga ko toppatoo dimbali ko yërëm ko. Mm-hmm. mais yaakaar naa ne ñun kenn jàppale wu ñu. caisse de sécurité sociale boo defee accident lu leer laa lay wax def nga accident dans les bu la defee certificat de guérison pare na si yow yow ak sa njaboot. imaginons man maa ngi liggéey di liggéey sama sama service ama problème di faju ma ak sama njaboot ma xëy def accident jeex na employeur bi dàq la. ne too liggéey ak yow avec la complicité de certains médecins. du ñëpp am na médecins yoo xamante ne c'est des médecins ñoo xamante ne ñoom loolu rek mu seen liggéey dañuy ànd ak employeur bi bind ni il est invalide wala nangam nangam ñu jël ko génne ko wàccee ko si biti kooku bu ñu ko dàqee tey par exemple moom ak ay njabootam kenn dootu fajoti amatul benn prise en charge te alors que CTO bii suñu xaalis dañ ko tabaxee presque trente milliards ñu lañ tabaxee CTO bi pour ñun lay accidentés mais ñu man tey tant que accidenté je suis ma demoon tey faju damay fay. Mm-hmm. kenn mënu kenn xamul lan la actuellement da ngay gis loo xamante ni danga naan mais est-ce que euh, accidenté sax da naan euh, am na ñuy yox naan boo waree def accident sax dee moo gën ndax dañ lay considéré comme comme ñu dee ñi. dootuñu la toppatoo dootuñu la yërëm amul kenn na ah ñu ne gisuñu ko suñu association gisuñu ko. Mm-hmm. ñu xëy benn bonne volonté ñoo fekk ni ah ñu di ay personnes vulnérables la ñoo yëkkati 2 millions bi yoo yëkkati 3 millions may leen ñu séddoo. gisuñu ko tey gisuñu ko suba gisuñu ko ginnaaw suba au contraire dañ ñuy néewal doole au contraire doon ñoo beddi au contraire dafa nekk ay personnes yoo xamante ni doon ñu comme on dit ay personnes vulnérables yoo xamante ni ma personnes yi vulnérables ñu fragiles yoo xamante ni finalement dañ leen dañ leen abandonné. Mm-hmm. bàyyi leen à leur sort. Mm-hmm. bàyyi leen ñii këndëng këndëng nii rek ak seen i njaboot. Mm-hmm. mu metti nag trop. accident travail nekkul yomb de. déedéet da nga koy dund mu metti yow ak sa njaboot waaw ah, wala yàlla dimbalee amoo entourage bu taxaw ñu si bare moo wax la tey ñu bare si suñu accidenté yi tey ñi dee na ñu dof na ndax amuñu benn suivi. ay tox ngay mujjee parce que dafay metti si yow. te amul ku la dimbali. ñu gisuñu man de je suis le chargé de revendication man maa la ko wax tey ñun gisuñu benn entreprise gisuma benn. bonne volonté bu taxaw ni dimbale ni association nationale des accidentés du Sénégal amut. te mu nekk loo xamante ni je pense que balaa ñu doon balaa nga naan naam ne fa parce que ñëpp nga fa nekk ku fa nekk am nga fa mbokk ñii seen tànk danoo dem ñii seen loxo yi ñii seen kii man ay appareils yi suñu ni wax ak yooyu war nañ ci mën a war nañ ci mën a jàppale mais amul kenn koo xamante ni ñun dimbale nu sur l'association boobu ñun gisuñu ko. muy mm-hmm. gouvernement di feneen foo xamante ni ah. ñun de gisuñu ko léegi. Mm-hmm. Euh, euh, euh, Mamadou nga nekk chargé des revendication de l' association nationale des accidentés des accidentés du travail ak et en mm-hmm. tey jii rek xam naa ne foofu moom dina nekk benn passage boo xamante ne dafay xaw a délicat un tout petit peu mm-hmm. mais bon comme yow yaa leen fi représenté bu ñu def émission bi te du ñu dellu si ci li nga xamante ne moom mooy sa jaar-jaar bi waral tey nga nga bokk ci boobule kuréel ba sax euh, am fa benn euh, poste boo xamante ne moom nga fay représenté tey jii boo doon dellu si ci sa jaar-jaar ban ban ci ban anam la amee ak ci ban moment de ta vie donc nga nga nga nga nga tollu situation suma ma ko mënee su ma ko mënee waxee ainsi. bon. Euh, li ngay wax nag aussi dafa xaw a comme tu dis dafa xaw a délicat parce que mm-hmm. en tant que membre des victimes euh, d' accident de travail nekk chargé de revendication ñu am ñu ñu bëri ñu si nekk su ma bëggee wax sama lu sama cas dafa xaw a Euh, yow gis nga yaa ngi gis sax euh, comment sa se passe dafa dafa compliqué dafa métti mm-hmm. mm-hmm. euh, yàlla moo lay dimbali moo tax damay damay sant bu baax a baax a baax a baax sama soxna di sant bu baax a baax sama entourage waaw donc bu baax sama entourage parce que dafa nekk lu compliqué. Mm-hmm. man ba may def accident. man Grand Moulin Dakar laa doon liggéey donc du duma du ma ko bañ a tudd parce que tudd naa fi ay entreprise euh, ma 30 ans la perte sama loxo si benn machine euh, mu dund ko lu metti man ak sama njaboot nag sama entourage dañoo dund lu metti accident boobu euh, directeur bu fa nekkoon sax ñëw na hôpital di ma seet pour te ñëw na cinq à six fois doog ma gis parce que bu ñëwee day ñëw yab si pont bi laaj ma comment il va l' état nangam nangam daal yi daw. pour dire que c' était vraiment ñu ko dund ak man samay xarit ñu ma nekkaloon service te nu dund lu metti. Mm-hmm. bu ñu demee ba ba ba loolu yëpp am euh, grand mu ne rajo laa nekk di wax aussi ah man indemnisé wul ma voilà. joxuñu ma cent franc dama koy wax di ko répété. Mm-hmm. te su ma ko wax. mais directeur bi fu nekkoon aussi jàppale na ma daal boo déggee ma ne jàppale na ma parce que wax naa ko ne jàppale na ma euh, jàppale nit kii rek déjà mooy nga utal ko lu mu def accidenté na metti na nu mu meloon melatu ko mais utal mu nekk jàppale ko nga utal ko fu mu nekk utal nañ ma poste maa ngi fa maa ngi toog euh, di suturlu mm-hmm. dem nañ ba utal ma ay oto pour may déplacer wu di liggéey te te te te di sali au passage sama benn chef euh, moom na sama chef tubaab la dafa dafa ma mosoon ëppale parce que dama doon xool ni tout le temps euh, remontée psychologique mu ngi doon def si man mooy doo moon gis différence entre man ak les autres su ma waree yuuxu daf ma yuuxu su ma waree casse day casse et tout ça mm. mais mais après quelques années après euh, dafa am une nouvelle direction une nouvelle politique ñoo di wàññi nit ñi madame j'ai j'ai reçu tous tous les coups mm-hmm. jëlee nañ ma fii yóbbu ma frigo taqal ma fi ay yoo xamante ni du dëgg wallaahi lik wallaahi mu metti mu metti euh, sama njaboot du ko dund nangu oto bu nga doon déplacé woo euh, imaginons directeur taxaw naan je te dama lay dàq si biti bon mu metti loo xamante ni euh, dafa metti même sunu monsieur Mimran PDG bi monsieur Mimran Euh, di ko gërëm sax parce que maa ngi xool na laa mën a kii di gërëm euh, ñi ñëpp ñu si nekk ñoom jaañee tout ça euh, ba ma defee sama accident directeur ba mu ñëwee def may dax monsieur Mimane dafa bañ pour te dire li ma ñu bekk tubaab benn dafa bañ ni non non non duñu benn Mimane si boppam lu muy nekk milliardaire yëpp daf ni non waaye ne ko non mu ne ko je le reprends moom embauché waat mais duñu bàyyi kon mm-hmm. continuer seen chemin yóbbu nañ ma fii yóbbu ma hors de Dakar. 70 mm-hmm. kilomètres de Dakar yóbbu ma ba dépôt Bambilor benn dépôt boo xam ne amul courant amul ndox ay jaan ñoo fay génn directeur bi ñëw na fa jaan dàq ko fa. dañ la doon poussé à bout. sorti métti daal. Mm-hmm. day mel harcèlement voilà avec la complicité de certaines personnes yoo xamante certaines personnes yoo xamante ni. bon finalement da ngay craquer da am ay problèmes voilà j'ai eu des problèmes ñu ne ma yaa jël lii te du dëgg mhm. je le dis et rajo laa nekk du wax du dëgg mosul nekk dëgg te du dëgg doon ko defee encore jël nañ ko yóbbu ma au niveau des des des euh, yóbbu ma taxaw heureusement mosuma dem si euh, yóbbuwul ma tribunal yóbbuwul ma dara non yóbbu ma damaa la baax sax wax dëgg yàlla parce que sama njaboot ñu nekkoon ñu si doon jàpp finalement ni dañuy cotiser dañuy fay ay dàqal ay 3 millions yoo xam du dëgg. Mhm. yëpp pousser ma rek. à la ñu fay ba pare ñu moom laa lay wax euh, direction bi taxaw kilifa yi taxaw. ñoo xamante ne dañoo karbaatu di wax dara du suñu dëgg dina na waaw direction bi décidé na séparé wu yow mais bu après ñu changé la contrat defal le contrat de prestation nga gëm leen. Mm-hmm. mais lépp wallaahi pour ay fen kese. Mm-hmm. nga ma baal ma. Mm-hmm. ba finalement dañ dañ si biti. ba nga génnee dafa sama entreprise pour ñëw pour wax ah defal naa sama entreprise léegi mat presque cinq ans. njaboot day tas. kuy téye xale yi. te yaa doon téye say doom yaa doon fay sa doom ñuy jàng amatu couverti maladie nga feebar te man foofu laa feebaree dama fa am aussi problème bët si biir entreprise bi ñu may faj ma am ay kayit yu wóor ñoom yëpp xam na loolu mooy li ma euh, euh, euh, problème bi daal. Euh, mbokku auditeurs yi ñoo ko déggandoo certainement euh, dellu si waat ci li nga xamante ne moom moo di paaseem soxal lii di accident bi dafay nekk loo xamante ne euh, du neex a wax dafay douloureux mais ñu jàppoon ne rek comme dafa am ñu fi représenté yoon la woon aussi ñu gën a xamlante ak moom wala auditeurs yi gën a xamlante ak moom fi nga xamante ne fa la jaar naka la ko dundee donc moom moo waroon ñu ubbi ñu ubbi benn benn benn rek. daal di ko koy jagleel dañuy des ci ci ci ci sur cette lancée ah Mamadou Niang fii dañoo baaxoo koo xamante ne da nga dem ba tollu diggante moo xam accident nga wala nga am benn laago société sénégalaise bi moom moo moo moo baaxoo nu nu mel soit dañ lay marginaliser wala ñu stigmatiser stigmatiser stigmatiser la autant pour moi ñu bedd la carrément. am na ñoo xamante ne dañ la koy montrer ouvertement que peut-être yow non seulement charge nga ci ñun mais en contrepartie amaloo ñu benn benn rendement ndax euh, ci seen association bu ñu mel di ngeen jot ay yenn ñoo xamante ne dañuy ñëw carrément di leen wax ne seen famille dañ leen di euh, bunu xataal bu ñu dundee situation yi lan mooy nekk seen taxawaay. Euh, soxna si nga nga parce que sànq dafa ñu question. Euh, ñii ñuy déglu dinañu comprendre émotion ngay waxee ak euh, sa sa état d'âme c'est pas aussi facile ah, euh, pour nga génne sa ressenti auditeurs yi dinañ comprendre sa état d'âme ak fi ngay waxee. voilà c'est c'est difficile donc ñu ma xam ne xam nañu man je suis je suis je suis pas je suis qui se mm. je suis comme ça ñu ma xam xam nañu ma bu baax. je me mais dafa nekk lu compliqué mais bon pour pour répondre euh, nga ni question bi question bi nga ni nga ni dafa pour gars yi li ñu ni stigmatiser euh, waa tout ça. Euh, ci seen association ci seen famille. naka la ñuy dundee li nga xamante ne moom moo état de fait bi ku doon liggéey ba liggéeyatul du question dañ la dàq mais da dem ba tollu situation ndogal dab la euh, ndax euh, au sein ci seen association bi di ngeen di farataal di jot ñoo xamante ne euh, vraiment ci seen environnement ci seen entourage familial dañ leen di stigmatiser dañ leen di boddi daanaka sax du ñu xamante lan mooy xew ci ñoom ci seen famille. fe bare na si bare na si bare na si maa ngi jégalu nag moo suñu mbokku auditeurs. Mm-hmm. bare na trop. wax dëgg yàlla euh, doomu aadama yi ñëw du ñuy wax loolu am na ñoo xamante ni sax pour vous dire mm, bu ñu ñëw di fayeeku mm, da leen di da leen di da leen di da leen di encadré ndax ñi seen bopp dem na si ëpp euh, ñii euh, dañ dof en quelque sorte ndax amuñu benn suivi ñii euh, am na ñuy metti loo xamante ni il faut ñu ànd nit pour mu mën leen encadrer loolu aussi lu lu jar a la donc juste pour dire que euh, l' encadrement psychologique euh, bu nu war a def pour les accidentés amut moo tax ñun suñu suñu association ku mel ne suñu président monsieur Sow ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy man koy nuyuwaat day dalal nit ñi di waxtaan ak ñoom di leen dellu si yàlla di leen waar. Euh, pour ñu xam ni li leen dal dafa metti mais yàlla moom moo ko moo ko moo ko dogal euh, donc nit dangay liggéey ba liggéey too amatoo salaire euh, dafa dafa dafa doy waar nit ki doon xëy bi wàcc ba léegi lu ngay dundee mooy sa pension bi te si je veux dire que imaginons quelqu'un qui a qui a cent mille francs par mois. nga war a am par trois mois. mu nekk trente mille francs par par par par mois donc du coup ça fait mille francs par par jour. Euh, donc kooku nan la war a dundee ak mille francs yi mu nekk loo xamante ni euh, soxna si dafa nekk lu compliqué euh, ñun suñu association léeg-léeg ñu jàppale nit léeg-léeg ñu dimbali nit. man récemment rek suñu mbokk ma Abdoulaye Gueye ba actuellement nii man maa ko doon jàppale di ko yónnee lu muy dundee. voilà xaalisam di génn di ko yónnee dara léeg-léeg mu yónnee ko 1000 francs ku doon fay ko am 350 000 hmm. rek. mu mën dal nu dalee kenn. Hmm. man ñaan yoon ñaata yoon laa ko yónnee xaalis balaa xaalisam di génn pour kees jot ko te ba mu ko kees jotee 700 et quelque 733 000 la ko fay la ko fay. te daw na si de 2018 la def accident mi ngi noonu ñu ngi ko chaque 3 mois am nga 140 000 chaque 3 mois dafa mujj jël bagage am yëpp daw jënd billet ma nga Maroc. ne day dem foofu pour yalwaan. Mm-hmm. combien de Abdoulaye Gueye ñaata doomu aadama ñoo fi nekk tey ñu doon liggéeyal doomu aadama yi ñu doon liggéeyal entreprise yi entreprise yi tey ñu ngi dox man ba muy ñëw da ngay dégg entreprise ay publicité te te nga leer ni ñii ñuy def publicité yi wala ñii ñuy yàq danganaan nga naan ñii est-ce que ñii seen dirigeants yi ils sont moo tax euh, loolu daal dafa dafa dafa dafa dafa dafa compliqué moo tax euh, ñun sax ñu ngi constitué parce que ñun dépendons de de de l'UNSAS INSAS INSAS doon doon doon bokk ñu ngi xool euh, au niveau de l'INSAS qu'est-ce qu'il faut faire pour ñu mën ñu jàppale voilà mais INSAS xam naa ni moom sax ñu ngi xool nu ñuy changer au contraire nan la ñuy mën a changer syndicat parce que Madame Mossok mooy suñu secrétaire général alors que c'est le PDG de de la caisse de sécurité sociale moo nu waroon dimbali jàppale wuñu dimbali wuñu ñu ngi xool entre nous comment on peut aller à à UGTS bu Sidiya Ndiaye ñu ngi xool comment on peut partir là pour euh, pour ñu mën ñu jàppale mën ñu dimbali euh, pour nu pour pour déjà ñu ñu suñu code de sécurité bi ñu ñu kii parce que imagine code bi depuis 1976 lañu ko ci def euh, lañu ko ci kii code bi mm. le 31 juillet 1973 leen defoon code bi si leen si waxoon assemblée nationale donc assemblée nationale affaire affaire accident de travail depuis 1973 dañ a wax au niveau de l' assemblée mhm. nationale mhm. le 31 juillet depuis loolu que ñun ay sénégalais lan nekk na loo xamante ni ñun war nañu ja na trop. Mhm. te te te amuñu amuñu moo tax ñu leen di gërëm leen seen rajo yi franchement di jàppale di jàppale ñu daal c'est c'est difficile c'est difficile. Euh, ngeen sosoon ko ci atum euh, tey ñu ngi en 2021 amaana ma lu bëri jaar na ci tey jii euh, du Niang boo ñu doon defar rek benn benn benn benn petit xayma 1973 2021 mun nañ ne que de chemin parcouru wala beaucoup de choses de son sont se sont passés lan nga ñu ci mën a wax concrètement si su suñu association bi mm-hmm. bon man euh, man daal ba mu ñëwee lu mu si mën mooy accidenté bu ñëw ñun suñu kéemtu lay kàttan mm-hmm. dinañ def lu nu mën ku nu mën a dimbali dinañ la dimbali ku la bari na ñun dimbali bare na ñu jàppal ñun jàppante suñu remontée psychologique bu ñu def dafa bari parce que amuñu psychologue je peux dire que ñu ñooy def remontée psychologique ñoo koy def ñoo lay jéem ñoo lay dalal ñooy waxtaan ak yow ñoo lay affaire bi nii la te yaakaar naa ñu on est mieux placé parce que imagine ku tànkam dagg yow mi sa tànk daggul defoo dara nga ñaan da ngay wax moom xam loolu du neex dégg mm. mais ku tànkam dagg ku tànkam ku tànkam ak loxoom dagg imagine man j'ai quelqu'un xam tànkam ak loxoom moo dagg il est dans association un jeune de rien du tout fekk ko xamante ni fii usine yi nekk fii la doon liggéey ñaar loxo yi ñoo dagg. kooku imagine il est dans la station ngay ñu convoqué la nga ñëw nga toog ñu kooku toog di wax ak yow kooku je pense que dina tax ñu gën a mën a dimbali dina tax ñu gën a mën a dina am remontée bu muy def si yow daal. Mhm. waaw donc loolu ñun daal temps bu ñu ci def yëpp ñu nu mën def daal mooy remonté psychologique jàppale lu la mën a jàppale dimbali lu la mën a dimbali mais boo xoolee ba si biir comme li ma wax sànq rek kenn jàppalewul mhm. kenn dimbalul te yaakaar naa ne le président de la république war na ñu bàyyi xel mhm. war nañu dimbali président de la république war nañu bàyyi xel bu baax les accidentés voilà bàyyi xel. Euh, yéen a ngi koy wax gisu leen kenn ku leen jàppale kon bu ma la déggee bu baax seen association bi euh, amu leen euh, bokk leen wala jëluñu leen en charge par rapport ak li nga xamante ne moom moo di la couverture maladie universelle wala. bokkuñu si ñun demandé woon nañ kees def lettre pour ñu bokk sur la couverture des maladies universelles kees tontu wuñu sax tontuwuñu sax kenn am ko si. nee naa la ñun suñu biir ku si feebar amoo foo fajo da ngay feebar ñëw ci médecin médecin bi ni la yow sa loxo moo dagg sa bopp mënut a metti nga dem quelque temps après nga gën a feebaraat nga dellu siwaat nu la non non non il faut nga wane prouver ni ko sa loxo bu dagg sa tànk moo ko war a metti te entre des médecins la moo tax c'est l'occasion aussi pour wax médecin Sénégal ne nu dimbali mm-hmm. médecin Sénégal vous êtes des personnes assermentées vous n'êtes pas n'importe qui votre signature rek day tax nitu ad ad nitam daal di basculer mais pour quand quand bi fii ñu ne yi nangam mais mais où sont ces accidentés et qu'est-ce qu'ils sont devenus ana ñu accidenté ñi seen jëkkër gaañu ana qu'est-ce qu'ils sont devenus les journalistes yi décédé woon ana seen njaboot dañ si dégg ana xale yi doon jàng. dañ see dégg les accidentés yi ngay gis ni seen doom yi après ñoom ñooy nekk dugg si gaal gi quelque chose comme ça parce que y' personne y' pas de suivi. te accidenté médecin lu njëkk wax mooy suivi et stabilisation mais pourquoi duñu suivre pourquoi duñu stabiliser c' est quoi le problème. parce que problème xol la dëgg la yow nit ki mu ngi liggéey mu ngi lay liggéeyal nii xëy na. Euh, employeur am bi amul xol la employeur bi mel na nu ma mel bon na mais médecin du travail te te te si je vous dis man entreprise moo nekkoon médecin du travail lañ am entreprise yu bëri ay médecin du travail ñoo fa nekk. Mm-hmm. mais ñoom ñoom ñooy complété avec ces ces ces employeurs def la neex. Mm-hmm. sur les accidentés kenn du wax. Mm-hmm. loo si mën danaa demal uti avocat. nga def avocat avocat bi da nga may fay un million wala da may fay cinq cent mille da nga ko am. Mhm. ko xam ne yaa ngi chaque trois mois nga am deux cent mille wala chaque deux mois nga am deux trois mois nga am deux cent mille foo koy fayee. Mhm. te am njaboot am am doom am juróom-ñaari si am lu mat six wala am wala dix wala quinze quinze quinze gos. Mhm. donc euh, Adja euh, ñun amuñu sentir luñu fenn que ñu ngi dimbali. jàppale wuñu fenn ñu ngi dimbali. la caisse de sécurité sociale lu mu ñu defal par année mu joxoon ñu secours te secours da ngay bind vingt cinq mille la boo bindul doo am parfois ñu bind cent personnes bind ñu jox cinquante bi cinquante ñoo disponible mhm. te mënoo si dara mhm. te dañ ni bureau de bureau de bureau national du travail mu ngi yónnee ay millions caisse de sécurité sociale pour les accidentés ak yeneen ak yeneen ñoo xamante ni war a jàppale mhm. dañu war a dimbali nag te yaakaar naa ni aussi euh, xëy dafa jot jot na ay mag lan ñoo si ëpp ñii duñu mag sax mais duñu sonn di souffrir intérieurement mais am na ñoo xamante ni xëy na te yàlla dimbali na leen ñu ngi taxaw di wax si rajo yi jot na pour ñu jàppale leen ñu dimbali nu daf soxla noonu ko. mais ça veut pas yow yaa ngi da nga nekk instant rek que yaa ngi liggéey feneen wala am nga beneen affaire rek bis bu sa liggéeyee taxawee boole bis boo demee retraite wallaahi dañ ñu fekk si te na métti yow trop. dootoo amati couverture maladie dootoo amati dara. Mm. sa njaboot du ko am dara du ko pour mm-hmm. mm-hmm. euh, pourtant nag ca weneen wàllu wa dañuy xam ne ne état bu Sénégal chaque année dina euh, yëkkati xaalis bu takku di ko jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo loru ci seen bërëbu liggéeykaay yi kon xanaa euh, su mën a déggee bu baax a baax financement boobu da ngeen ko déggul. wala yëgu leen lu ni mel ba ngeen mën a bind pour soumettre ne serait-ce pour euh, ngeen bénéficier wu ci ci largesse yooyu le largesse bi de euh, euh, ñun de gisuñu ko. Mhm. te te maa ngi gërëm seen seen seen seen seen seen kii bi seen organe de presse bi parce que bind na si démb di si wax di si wax pour pour les les accidentés mhm. que état mi ngi dépassé à peu près cent soixante et quelque à peu près presque treize milliards par par mois mais ñun gisuñu ko ñun dégguñu ko ñun sentiruñu ko nous les accidentés voilà xëy na dafa am beneen branche accidenté mais ñun sentiruñu ko ñun gisuñu ko au contraire dañuy gën a sonn. Mm-hmm. bañ nañ ko ba léegi sax ay carte biométrique lañu jox. pour ñu bañ a regrouper pour ñu bañ a ñëw ci caisse sécurité ay carte biométrique ay carte yoo xamante ni pas carte biométrique ay carte de de paiement jox ni moom ngeen di fayekoo dans les dans les dans les dans les guichets te boo demee carte bi bu dee 34000 30000 francs la lay jox 4000 francs da koy jël ñu da la koy dencal ba ñetti weer yi di ñëw. imagine ko am 34000 man gis naa quelqu'un qui est dans mon dans mon sama association 34000 francs lay fay ko par 3 mois madame 34000 par 3 mois am jabar am ay doom nga ñu jël 4000 francs ñu teg ko ñu ko dama la koy dencal ba weer bee di ñëw pour lan. loolu yëpp pour gën ñu naxasal gën ñoo sonal boo feebaree doo faju bu sa doom feebaree du faju ñii amul engagement bancaire ñu baree bare bare bare ñoo xamante dana am engagement bancaire seen ay kër ñii dàq na leen seen kër ñii génn na leen seen kër billaahi wallaahi ñu leen waroon jàppale kenn du leen jàppale mu nekk loo xamante ni dafa dafa métti trop Euh, waxtaan wi am na solo monsieur Niang mais mu mel ni rek li ñu coroloon ci waxtu wi yegg nañ ca euh, te ji lan mooy ce cri de cœur euh, boo mënoon dellu ci aussi ci seeni i jafe-jafe yi ngeen di gën a farataal di jànkonteel rek laata ñu tëj émission bi. sama cri de cœur rek di wax le président de la république le président Macky Sall mu dimbali nu mu jàppale les accidentés du travail. sonn nan mënuñoo wax ma bëgg yéen les journalistes aussi ngeen def ay enquêtes ngeen wàcc sur le terrain ngeen xool qu'est-ce qui sont devenus ces accidentés de travail dans les entreprises et dans leurs maisons. Mmh. et que nañu xoolaat code de sécurité sociale bi dafa yàgg nañ ko réviser delloo ko mu nekk si jamonoom encore même les retraités. le président Macky Sall ba mu ñëwee nee nañ nañu fay ko chaque mois mais ñun rek les accidentés ñooy fay ko par par trois mois. Mm. ñetti weer bu nekk amul beneen amul feneen fu mu ko defee. te loolu loolu yëpp code bi moo nu mën a dëmbali mm. pour ñu jàppale ñu pour ñu mën ko def ko révision bi ñu si tegaat encore di ko waxaat mooy la caisse de sécurité sociale na bàyyi xel les accidentés. caisse de sécurité sociale ñun moom la ñu ñun moom mooy suñu comme on dit ñun fa la pour toute la vie nu dimbali di ñu jàppale di wax un appel di wax wax di di lancer un appel à monsieur Racine Sy dégg nañ bon bon dégg nañ ñu muy def ci mm-hmm. lu baax na dimbali les accidentés parce que c'est le PDG adjoint moom moo fi nekk caisse ma dem ba soog jàppale woonu dimbali nu mais moom nañu dimbali jàppale nu ñaan nañ ko na nu dimbali recevoir jàppale les accidentés jàppale les accidentés de travail mooy xoolaat seen ay conditions nga mettre leen dans des bonnes conditions te naa la xamal accidenté de travail ku ko dimbali yàlla moo lay fay. ndax ku doon liggéey fenn ba yàlla def ko mu nekk handicapé wala dara képp loo ko mën defal yàlla moo lay fay. ñu si bare nag ñu ngi nekk si dans des situations très difficiles si je vous dis def leen enquête yéen journalistes ngeen xool comment vivre ces accidentés yaakaar naa ni yaakaar naa ni sax xam naa du ngeen xalaat leen parce que man gis naa sax ñi ngeen di wax si ñi accidenté leeral accidenté waa leeral yi yàggul sax mm, yàggul mais xoolal ñeneen ñi ñu bëri ngi fi ñoo xamante ni ils sont en train de souffrir dimbali leen ngeen jàppale leen pour que seen santé gën a améliorer parce que santé muy nit te ñun ñu ñun nous vivons avec les médecins ñun ñu vivons avec les ñun ñu moo ñu war a dimbali bu ñu dimbaliwul aussi day metti ku nekk am nga ay feebar am nga ay séquelles dañuy bàyyi nii ñu nekk abandonné à nos sorts ba xëy benn jour rek nga dee te moox la den boo deewee tey pour caisse de sécurité sociale jël rente bu nga doon jot mu xaaj ko si ñeenti parti ba ñetti parti pour jox ko sa njaboot il faut ñu defal la autopsie yow pour wane ni yow lu ça la voir ak accident bi. Mhm. pour ñu lay doog a fay. Mhm. lu jaru sóoraale la. Mhm. accident bu ñëw demandé pour que ñu fay la sa il faut ñu xotti la. pour montrer que comment ñun a est voilà daal te mën a dal ku nekk. donc président nañu dimbali nañu jàppale je me dis que ñu xoolaat suñu code pour xool dañ leen mën a réviser loolu léegi lu may terminer les employeurs qui sont dans les empl les employeurs. du liggéey sa entreprise. ba am accident mu lenn kii ni mu meloon melatu que lu mu amee si accident bi la ko amee ngay am xol di ko dàq nañu bàyyi loolu loolu rafetul nañu bàyyi di dàq ñii ñi di leen def ay contrat de négociation nangam nangam pour génne leen entreprise bi pour dàq leen si biti di leen nax lu tax takk rek ay rendement ngay daw mhm. pour si sa sa entreprise ñu am nga xa lan la yàllaa fi nekk nañ dellu si seen xel ñii nga xamante ni dañ doon liggéey si yow ba accidenté nga téye leen xam ne ñii li ngi teg yàlla moo la ko teg nga nangoo ko te da ngay xëy am yow mi patron di fa def loolu da ngay xëy am doomu mongol wala doomu leen da koy téye doo ko sànni. wala sa frère ak sant doo ko sànni da nga koy téye. parce que da bokk rek moo tax. Ah, loolu daal laa loolu laa amoon euh, dina naa naa ko naa ko naa ko naa ko wax daal. Uh-huh. Hmm. Euh, euh, mbokku auditeurs yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñuy déglu bon. Euh, vous l'aurez certainement compris comprendre ngeen ko bu baax a baax il la parlé avec le cœur dënn la doon waxee euh, certainement euh, émission bi daf ko daf ko delloo si non seulement daf ko delloo si waat ci ay année ci ginnaaw mais aussi guddi yu ñu toll ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu jéggi dayoo ba certainement bi muy wax sentir ngeen ko sax dënn bi benn moment jóg na mais aussi on comprend ni ñuy déglu dinañu comprendre sa état d'esprit dinañu xam ne certainement tolluwaay nga doon nga doon waxee ndax mu ngi mu ngi jéggalu ah mu ngi jéggalu mbokk auditeurs yi ma euh, fàttali na yéen a ngi den déglu seen émission bi di SOS santé mu amoon tey mbégte ak daneex bànneex di doon dalal ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Niang du Niang nekk chargé de revendication de l'association nationale des accidents du travail ak ayants euh, droit xam ngeen ko comprendre ngeen ko c'était un cri de cœur bu mu doon lancé tout au coup tout autour de l'émission il a parlé comme ça mais dañ ko koy nangul xam ne tolluwaay la doon waxee tempérament bi il fallait que mu jóg ñu ñu ñu jàppee ko noonu fàttali ne Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarala bi jërë ngeen def ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité